man la Sidi Lamine Ndoye secrétaire général SUTSAS président de l'intersyndicale de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane ok. onze xale yi de xam nga loolu rëy na sage-femme buy dundaloo nit di ko génn ci biiru yaayam di ko jox yaayam tey ji ñu wëlbatiku ni ñoom ñoo tax ba lakk ga am wala lakk ga bu mu amee lu tax fayuñu ko ñoom ñoo tax ba lakk ga am wala ba lakk ba amee lu tax fayuñu ko sage-femme mënul créer provoquer incendie incendie bi du ñoom ñoo ko def. ñoom du ñoom ñooy fay lakk ñiy fay lakk mooy sapeur pompier na leer ci bopp nit ñi ñoom seen stéthoscope la ñu yore seen tensiomètre ak seen thermomètre di faj nit ñi di leen jox ay soins loolu la leen jàngal deuxièmement am na rapport bu génn ñu koy tuddee rapport causal ñu liir ko ci presse bi yëpp ñëpp di ko gis nee nañu fukki point fukki fukki fukki fukki anor douze anomali fukk ak ñaari anomali maanaam yu yu baaxul yu bon yi nekk ci installation électrique bu hôpital Tivaouane kon tey sax dañuy poser la question est-ce que hôpital Tivaouane war na ubbi di dox ndax comme douze anomalies yooyu ba léegi ma nga fa dañuy interpeller l'État ñu wax ñu douze anomalies yooyu ndax ñun war nañ cee liggéey ñoom ñoo ko wax kon mbir mi leer na lii ñuy def nii nag dañ ko dul nangu ñu jël ay xale yu ndaw yoo xamante ni ku fi nekkoon sa jarbaat wala mu nekk sa rakk di nga taxaw ak ñun ci naaj bi ku toog ci kër di critiquer sa parce que dafa dekkul sa jarbaat wala sa ñun nag duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg moo tax ñu ñëw tey taxaw cees parce que Thiès mooy union régionale Thiès moo géré syndicat régional bi Mbour Tivaouane Xombol Pout Joal ñëpp fi teew bu ñu paree lii bu leen libéré wul semaine prochaine Dakar mooy aaye ak au niveau national ñu nasaxal paj bi ñu nasaxal paj mi ci Sénégal nasaxal ko tant que ñoom ñi ngi fii parce que du ñu nangu ñun ñu nekk ci ñoom ñoo ñoom ñooñu ñu ñu jël leen tëj leen ñun ñuy liggéey loolu moo waral tey ñëw bi fii te suba bu fekkee ni libéré leen tey incha allahu rabbi suba tamit dañuy ñëwaat fii suba bu ñu ñëwaatee fii tamit dañuy toog ba keroog ñu leen di libéré tant que libéré wuñ leen ñun duñu du duñu duñu liggéey loolu mooy li nga xamante ne nii moom moo waral tey ñu ñëw toog jóge Tivaouane ñii jóge mbuur ñii jóge Joal ñii jóge cees pour manifester encore une fois suñu solidarité parce que dañ leen a dañ ko dañ leen a solal mbaxana mi injustement te duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg voilà.